mbokki jullit yi mbokki taalibe yi a ah, noo ngi fii nag ci groupe su ni la kase woote mbaa mara kaajuna borom mbaa mara kaajuna waaw waaw ndeysaan Ablaye Mbaye dafa sa yaram daw na Cheikh Mbacke Serigne Sow xamu fu mu nekk waaye yaramam daw na ndeysaan ak oras dañu ñëw waa Daaru Marnaan ak si nanu de dafa us na ñëw ak oras dañu ñëw loolu la xaar na waaw waaw Baye Mor Dame An Gueye bërgi dem moom la laaj jëm doon seet si ndeysaan Mor An Gueye danaa ko wax Mor An Gueye ndeysaan waaw waaw waaw waaw ndeysaan nag lu mel ni mas naa cee bokk noo ca bokkee woon mama ah ñu départ ah ñu ni pour ren mama wa nga juutuma déedéet kay ngay nag juutu xaaloo seen dëkk la nit di bàyyi jukkoom xaaloo seen dëkk la day mel ne kër bu jóge rajo bi numéro 12. waaye Macky Sall jël deuxième Macky Sall deuxième président de la république ki defar Ila Touba. tey ku fu mbaam a ngi noonu. tey rek mbaam mu nekk wuti foo jaar. 18 le premier 18 le. nga tax mbaam mu ci gis ñu wax dëgg 18 le. lii amuñu mbalum dem sax. numéro 18. deux cent deux jours. Mustafa adi ko la tele tay nak tepp ko tele tay ak sama bo li lepp yo kon dal tepp ko na première balle joxe na première balle ah numéro bi première numéro bi deuxième numéro cinq waa gars yi gars yi ni ngeen def ak yi xew nag gars yi